Mbaye Jacques Diop maa ngi lay nuyu. waaw awa maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu tous les auditeurs de Rewmi FM. alors ngay administrateur u euh, plateforme club des experts sportifs tey nan nga gisee euh, limogeage yu Aliou bi. xam nga limogage bi mën nañ ko saytoo ci ay fànn yu bari parce que man du ma wax sax limogeage mais fin de collaboration la mooy li ngeen di wax en français cadre de fin lu tax fin de collaboration la parce que état du Sénégal moom moo doon fay Aliou Cissé depuis bi mu jëlee fonction ba léegi. neuf ans et quelque moom moo koy fay ci wàllu woowu aussi gis nañ ne aussi que état du Sénégal bi contrat Aliou Cissé jeexee mu saytu lan moo nekkoon contrat bi parce que état continuité la parce que soo xoolee contrat Aliou Cissé le ministre Matar Ba moo ko ñu ko signé bi ñu ko signé bi ñu walee revaloriser son salaire euh, euh, ministre Yankhoba Diattara ñëw renouveler son salaire salaire bi passé du double au simple maanaam ñu koy fay quinze millions mu jëlee quinze millions dem trente millions mais ci biir trente millions yooyu fanweeri millions yi dafa signé ay objectifs mooy dem quart de finale lu coupe du monde mais malheureusement huitième de finale la toogee Angleterre moo ko dóor aussi ñu gagné woon coupe d'Afrique ñu ne donc la reconquête au moins la conservation du titre continental loolu mu ñu am huitième de finale Côte d'Ivoire donc bi madame le ministre ñëwee aussi contrat bi jeex fédération ne ko ñun Aliou Cissé la ñu mais ministre bi aussi xool ne Aliou am na ay manquement parce que am na lu ma signé woon mais lu ma signé woon objectif yooyu atteindre ko a ah, ministre ne leen kat li ngeen bëgg mënuma ko parce que kii kat li ma waxoon teewloo ak ñun amul antuwul donc ministre aussi bind leen lettre mais aussi au delà de ça mën nañ ko analyser aussi sous l'angle de la clameur publique parce que Aliou Cissé boo xool bi ñu koy jël il n'était pas le meilleur entraîneur amul woon référentiel simple kii la woon adjoint simple adjoint la woon bu Karim feu Karim Ségo Diouf si yàlla Karim Ségo Diouf adjoint de la sélection olympique amul dara benn référentiel ñu jël ko jox ko équipe nationale parce que y avait la clameur publique boobu ñu ngi woon expertise locale gars yi lañ ko jox Aliou Cissé je me rappelle. Hmm. Aliou Cissé euh, def benn geste boo xam ne sax dañ koy qualifier de geste de lobbying parce que boobu le président Macky Sall mi ngi doon en tout cas le stade Aline Sitoé Diatta bu bu Ziguinchor bu ñu réalité woon Aliou Cissé bàyyi ba ñëpp toog mu ñëw ay yuuxu Aliou pour l' équipe nationale donc loolu ça a un peu influé sans compter aussi l' opinion publique mais aussi soo xoolee départ aussi opinion publique bi aussi soo xoolee am lu ñu ci parce que soo xoolee ñaari match yi xam ni la mujjee jee contre la République démocratique du Congo mooy contre le Burkina Faso am nañu parce que on prend des buts xam ne à la toute dernière minute sur des erreurs d'appréciation ba Sadio Mané sax defoon na ci benn sortie comprendre nga donc cela dire que clameur publique aussi match bi contre Burkina jeex ñu yuuxu ko loolu c'était des signes annonciateurs mais loolu yëpp aussi euh, euh, autorité nga xam ne moom lañu moom moo ngànk sport bi xool ne yooyu ay manquement la donc mu ne man du ma ko renouveler mais dem leen wuti ke beneen entraîneur donc objectif yi atteindre ko donc ci wàllu woowu loolu c'est une logique parce que état moom sport am daf ko dénk fédération ne dama leen ko dénk mais moomu leen ko mais dénk bi aussi man dama ci am xel xalaat dama koy saytu parce que su si Cissé signé contrat fédération buy indee contrat bi euh, autorité bi da koy jël yóbbu ko ci agent judiciaire de l'État agence judiciaire de l'État xool ne ah objectif yi de méngoo na ak gis-gisu askan wi méngoo ak gis-gisu liñ ci xalaat mais su fekkee ni aussi atteindre objectif yi ah su boobaa kat agence judiciaire bi rek ah mu ne objectif yi li koy fay bari na trop fanweeri million amul benn entraîneur bu ko mos a def fii te juróom-ñeenti at amul benn entraîneur sénégalais bu ko a def moyens ko jox amul benn entraîneur bu mos a jox donc aussi accompagnement bi ñu ko mos a defal amul benn entraîneur bu ñu ko mos a defal donc jaadu na kon ñu limoger ko lool état état noonu lay fonctionner état amul xarit état day xool intérêt population bi mu ànd ak ñoom donc bon. je pense que la euh, souvent les gens parlent de limogeage, mais c'est une fin de collaboration parce que contrat bi jeex na. alors su fekkoon dañ koy limogé su dañ ko limogé woon dañ koy fay ay indemnité de limogeage yooyu yëpp mais contrat bee jeex tey état bi du ko jox dërëm dërëm dërëm mais souvent xaw ma je ne sais pas parce que dans des contrats sociaux yu mel ni souvent booy dem dañ lay fay lu ñuy wax ay indemnité de départ dañuy jël cinq pour cent de ton salaire. ñu fay la indemnité de départ. ñetti fan laata ñuy euh, publier euh, muy publier en tout cas list bi euh, fédération bi ci la confirmer départ am te ñu ci bëri ni daal limogeage bi mënoon nañ ko def ci anam bu gën a rafet. xam nga nit ñi dañu nekk dans lu ñuy wax émotion nañu bàyyi émotion parce que état léegi laal ne état amul xarit amul mbokk état xam nga lan la xam ay intérêt ay gérer di gérer intérêt population li population bëgg la état ki lay dox te si wàllu woowu aussi. dans partout dans le monde entraîneur c'est une vie faite de rencontres et de séparation gis nañu fi entraîneur yoo xam ne qualifié nañu seen équipe coupe du monde balaa veille de coupe du monde ñu limogé leen gis nañu entraîneur yoo xam ne à la veille d'une finale entraîneur yoo à la veille d'un match ñu limogé leen donc man nekkuma ci sentiment yooyu Aliou Cissé devait partir il est parti l'autorité a pris une décision maintenant advienne que pourra parce que nit ñi aussi dañuy wax woy trois jours wala wara dañ ko bàyyi peut-être que bon dans dans ce qu'on appelle le monde du football am na lu ñuy wax un jockey peut-être boo nañ ko bàyyi mu terminer l'équipe boo nañ ko bàyyi mu mu mu mu mu mu mu mu kii mu mu griller son dernier jockey maanaam mooy peut-être yeggale les éliminatoires mais état aussi peut-être que moom jugewul nécessaire loolu que aussi xam nga nit soo nekkee ci benn affaire il faut nga am ay conseils parce que loolu la ñuy wax dans le monde du sport son dernier jockey mais malheureusement peut-être au niveau du ministère des sports aussi ñoom comprendre ñu loolu xamuñu loolu parce que yooyu c'est des aléas du haut niveau donc mais bon trois jours rek benn fan munoon na sax après convoqué ñu kii ko parce que bu leen fàttali Aliou Cissé bi muy jël sélection bi aussi comme ça ah kat dafa am ko ko assuré woon intérim bi am nañ fi benn match boo xam ne am fekk faal moo assuré intérim ainsi de suite donc ça dire que am nañu ay dirigeants yoo xam ne am nañu ay dirigeants yu mot dirigeants yoo xam ne am nañu expérience ak yooyu yëpp tey entraîneur bu mu doon ñëw wala Aliou si à la veille d'un match mu dem les gens <laughs> nul n'est nul n'est indispensable nul n'est indispensable dans cette vie là. nan nga gisee euh, relation bi euh, ci diggante euh, fédération bi ak ministère des sports. bon relation bi su ñu waxee dëggantaan quoi du relation bu xaw a neex tax yi parce que pourquoi du relation bu neex la benn bi on demande à, à, à la fédération un bilan de la coupe du monde et la kii moi-même j'ai tiqué beneen bi aussi la fédération aussi à répondu euh, avec des relents de mépris xam nga yooyu aussi ci autorité ak euh, kii waruñ kii ñoom dañu war a toog arrondir les angles xool exactement ñoom ñaar fan la ñu war a jëm parce que ñoom ñoo war a tirer dans la même direction parce que objectif yooyu mais aussi ma xam ñu ma xamal la benn affaire quoi qu'on puisse dire, le président Augustin, c'est un bon allié pour l'État du Sénégal. Parce que tout simplement, de tout le temps, c'est Moussa Diortier, autorité. Donc, il y a eu des soubassements, il y a eu quand même des, des il y a eu part, ay problème yu am ci rapport assemblée générale bi parce que y avait club a un collectif de club des amateurs tout ça donc ça veut dire quelque part aussi yooyu yëpp ay gàllankoor yoo xam ne la war nañ ko mën a et la fédération sénégalaise parce que fédération dañ koy délégué ay pouvoir tutelle moom sport bi état bi ko moom dénk ko ko donc moom moom dénk ko football bi donc ma je pense que ñoom war nañu sax di mën a toog a des fois aussi la ministre yenn lettres yi sax jaru ko war nga mën a woo Augustin bi nga xam ne c'est la personne morale ñu toog ñoom ñaar discuter comme ni ko yenn cour kilifa yi doon defee yenn yi am sax xëy na jarul sax lettre waaw mais su fekkee ne par exemple parce que lettre yooyu dafay am traçabilité dafay des aussi parce que administration am na loo xam ni dina la dans ta vie nga def ci lu baax nga def lu bon aussi wala nga def ay erreurs xam ne lay topp ba durant toute ta carrière moo tax souvent des fois am na yoo xam ne sax échange moo ci gën ngeen toog nga nga ne monsieur le monsieur le président kat soxla naa la ñëwal telle heure sama bureau waxtaan ngeen discuter mu jox la xalaatam nga jox ko xalaatam mais après bu fekkee moom gisul après nag yow tu prendre une décision parce que la dernière décision revient le développement du sport et à qui à l'autorité qui a confié aujourd'hui la gestion du football à une fédération et à une personne morale. Et la personne morale, c'est Maître Augustin Senghor. Parce que aujourd'hui, Augustin, c'est le président. Donc, c'est l'interlocuteur, l'interlocuteur de di football auprès de l'autorité auprès en tout juróom-ñeenti at mu def ko ci bopp gaynde yi tey jile euh, kan nga gis ne moo mën a wuutu Aliou Cissé ndaxte euh, ñu ci bari ñoo ngi naan Pape Bouna Thiaw fi mu toon nii taxaw na ana nan nga ko jàngate bon xam nga aussi bu ñu waxatee bu ñu waxtaanee dëgg su fekkee dañuy xool Pape Bouna Thiaw profilam profilu Serigne Saliou Cissé Serigne Saliou moo gën nañu waxante dëgg bu ñu waxante dëgg dëggantaan profilu Serigne Saliou Dia parce que am na référentiel Serigne Saliou Dia ay trophées continentaux au-delà de ça gagné na ay trophées nationaux contrairement à Pape Bouna qui n'a pas assez d'expérience ça il faut le dire dañuy entraîneur le choix revient à la fédération moi j'aurais souhaité par exemple par exemple on peut faire un, bon par exemple aujourd'hui une bonne en tout cas un bon duo ou bien un bon trio entre Aliou Cissé entre Serigne Saliou Dia euh, Amara Traoré parce que Amara Traoré nit ñi dañuy nekkoon na entraîneur équipe nationale te am na xam-xam boobu te ba pare il a joué au plus haut niveau tey Ali Amara Traoré waroon na mën a sax nekk le team des équipes nationales le team manager de toutes les équipes nationales nga xam ni su boobaa moom di parce que moom mun na jouer interface boobu entre les équipes nationales la fédération foot encore il est membre du comité exécutif Pape Bouna Thiaw ak a a il y a aussi Malick Daaf comme ni ngeen tuddee Pape Bouna Pape Bouna il a eu la chance d'être un entraîneur mais je pense que il y a aussi des entraîneurs parce que aussi il y a comme par exemple un entraîneur comme Diallo qui vient d'obtenir son doctorat il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont qualifiés hein, qui peuvent qui peuvent aujourd'hui un entraîneur pour la sélection nationale aussi il faut nga un référentiel aujourd'hui si l'on euh, compare par exemple pense que ceux qui ont les, meilleurs référentiels dans ce pays-là, il faut avoir le courage de le dire. C'est Céline Saludia, c'est Amara Traoré, c'est Malik Daf. Ça, il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. ñëpp ñooñu la ñoo gën référentiel Pape Bouba Thiaw Sarr nañu waxante dëgg maintenant le soir le dernier mot revient à la fédération qui qui qui peut être au comité exécutif qui prendront au moins le soin de choisir leur l'entraîneur national ou bien euh, au-dessus de cette sélection-là, mais tout en préservant aussi les intérêts euh, de, du peuple sénégalais. Oui. aussi mm. les objectifs, parce que l'objectif, moi, la qualification à la Coupe d'Afrique 2025 et la qualification à la Coupe du Monde 2026. Oui, ce sont les, les objectifs. Mm. Parce que aussi, il faudrait aussi que nous signions un entraîneur, nous Ah, contrat bi nan lay enjambé mais des fois da ngay signer un entraîneur contrat boo xam ne day pare après la CAN moi je pense que yooyu il faut ñu invité ko parce que on a eu deux expériences yoo xam ni avec Amara Traoré avec euh, avec comment dire avec Aliou Cissé dañuy signer contrat ba mu enjambé ba dem lu parce que alors que contrat boo ko signé da nga ko signé euh, bi pour une échéance échéance boobu su jeexee soo soo ko war nga ko war a remercier ko wuti keneen maintenant par exemple xoolal Aliou a signé un contrat avec lui on avait signé un contrat boo xam day enjambé après CAN veut dire que quelque part aussi c'est problématique c'est mm. problématique moi je pense que il va falloir qu'au niveau du ministère que les gens réfléchissent sur au moins la durée des contrats elle est importante aussi loolu lu am solo la. Mbaye Jacques Diop rek ni yow administrateur u euh, plateforme club euh, des experts sportifs nga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay gërëm